jiital giñ jiital Matar Diop ngir mu jiite liste benn bokk yaakaar gi fii ci diwaanu Touba juriti na coow ci biir dëkk bi mouvement reconnaissance def kuréel goo xam ne ni ay militant APR ñoom ñoo ko taxawal ne duñu ànd benn yoon ci list boobu ci teewaayu militant yu takku-takku ci la Nogaye Diouf ak ñi mu àndal ne dinañ def seen kéemtulaay kàttan ba liste bi du jàll benn yoon ci biir département bi liste bi daal boolewuma ci yëguma tinuma maa ngi leen xeex la ma ba liste APR bii du am ndam ci Touba lii laa bëgg président Macky Sall nag bawuma ko tey bawuma ko ëllëg ndax su ma ko doon bàyyi damay jël sama photocopie dugal ko ci beneen liste ànd ak ñoom di xeex déedéet boobu xeex neexul damaa taxaw nag pour bëgg ànd ak koo xam ne mi ngi ci mi ngi ci Touba su ma analyser ba xool peese kay jariñ askan wi kay jariñ Touba kay wax ci xam-xam kay jëfe xam-xam kay yaru amit teggin kookee lay àndal waaye ne tegaguma kenn baaram ndax gisaguma lu ma doy tegaguma kenn baaram de gisaguma lu ma doy damay xaar xale bu yaru xale bu doon nit te nit te am jom tey gërmi te loo ko jox mu liir ko te jàng Matar Diop sama jàmmal la waaye di borom. fii ci Daaru Manaan nga xam ne ni fi leen doon dajee ak seen militant Abdou Fatah Diop ne li leen gën a naqari ci biir parti bii di APR moo di ñu ci bari ci ñoom dañ leen fulaalut benn yoon te loolu nag ñoo ngi koy ñaanlu bu baax a baax. liggéey bi ñuy def bi ñu ko yëkkatee li ñu waxoon mooy président Macky Sall parti bi nii muy doxe ci dëkk bi war nañ ko organiser ñu bind ko lettre moom président Macky bañ jox ñu accusé de réception ki nga xam ne moom la teg ci région de Diourbel muy kilifa politique ñu bind ko lettre pour mu woo ñu audience ñu waxtaane jafe-jafe parti bi yàlla dogal ñoom ñëpp jot nañ ci te kenn wootewul ñu toog waxtaane organisation élection yii di ñëw ñu xëy xëy ñu wàcceel ñu ab liste ne ñu lii mooy liste bi nga xam ne moom lañ d'accord ñan ñoo ci d'accord bu fekkente ne da ngay def ab liste ñi séq liste bi te ñu war leen a woo yéen ñii ngeen dem voté liste boobu war nañoo mën a toog waxtaane ko ñu xëy xëy ñu def ko ci suñ kaw suñ taxawaay mooy lañu waxoon defuñu ko parce que kenn woowu ñu waxtaane jafe-jafey parti bi organiser ko door dem élection ñu xëy xëy parachuté ñu liste boo xam ne xamuñu fan lañ ko defaree kon li nga xam ne moo logique ci élection yii di ñëw képp koo xam ne nekkoon nga APR te gëm ne reconnaissance amul considération amul ci département Mbacké liste boobu le 23 juin da nga koy wan ginnaaw loolu lañu fas yéene te dinañ ci dox lépp lu ñu man danañ ko def ay fan doom dox suñu diggante ak élection locale yi ba tey jii ñu gis ay coow ci biir parti bi di benn bokk yaakaar ñenn ñi bu ñu génnee dem lëkkaloo ak yeneen parti ñi des nag ñoom dañoo jug battre campagne contre liste boobu ngir rek bañ mu jàll ci bi 23 janvier gi nga xam ne nii moom lañu fas seen amal élection gox goxaan yi